jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet gason Production mbokk yi tey ñëw nañ fii arène national nag dañ fay fekk menaceru ki nga xam mooy Balla Gaye numéro de ak menaceru Eumeu Sène loolu nag junj la yaakaar naa ne am na lu fiy xew promoteur bi aussi tamit mi ngi nii borom la 5 mars maa lay siyaare bu baax di la balax di la bala wax waaw delloo ziar baal naa la yàlla ñu yàlla boole baal ah di ñaan jàmm suñu dëkk bi euh, di ñëpp àq di àq donc euh, ci weeru koor lañ nekk vraiment dara waru fee ñaaw donc euh, képp ku ñu tooñ baal lañ la te képp ku ma tooñ tamit maa ngi lay baal waax euh, te yàlla ñu yàlla boole baal waaw comme ni nga ko waxee ñaari manager yi ñu ngi ci biir defuñu lu dul signé régulariser combat Eumeu Sène Balla Gaye bi ñëpp doon xaar xam nga rek làmb moom lu jot yomb Euh, coow bu jaru ko fi. Hmm. dégg nañ lu ne gis nañ ne mais làmb mel noonu. Hmm. làmb moom balaa muy gën a neex coow li gën a yokk. donc euh, ñi ngi nii tey CNG di régulariser Eumeu Sène Balla hmm. dañu déggan ay coow ñu ne combat Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène benn cas bu nekk ñoom Eumeu Sène ne 30 juillet la yem seen contrat yem. ñu gis ñu génn ci kaawu Balla Gaye ne ñoom waajuñu combat bi ñu gis Balla Gaye def interview ne moom mi ngi waaj combat bi promoteur bi xëy ñëw CNG coow li bari woon na lan moo tax ngeen ñëw ba ci cappaandaw gi ngeen doog a réagir. non waaw mooy li ma la wax rek xam nga lu jot yomb ñun kale woon nañu suñu combat yàgg na donc suñ ko kalee yàgg na wax ci dootuñu ci waxaat léegi nag nit ñi tamit su leen neexee mën nañu génne di wax lu leen neex mais ñun xam nañu suñu bopp ñun suñu liggéey dañ koy teg ci yoon et puis euh, bon ma seen Euh, moom moo génn wax wala keneen moo génn wax. Mm-hmm. Kaaw Balla Gaye Kaaw Balla Gaye non loolu moom làmb la rek làmb moom képpee ñëppay wax. Mm-hmm. mais ñun lu ñu xam ba seen ñaari manager ñi ngi fi. Mm-hmm. contrat bi li ñu koy signé pour le trente juillet incha allah. ci lay combat bi di am bu soobee yàlla suñu borom. ok combat bi yaakaar naa ne tëgg ngeen nag combat boo xamante bi nii wala revanche boo xamante bi nii ñëpp a ko doon xaar Balla Gaye 2 Eumeu Sène parce ñu bëri dañu yaakaar naa woon làmb waaw ah moo tax man la làmb coow waaye moom nañ koy xalaatee noonu rek suñ ko xalaatee noonu day tax làmb ji day gën a neex euh, gisoon nañ fii le premier janvier coow yee ëppoon téeméer yoon làmb ji du am ak lu nekk dégg nañ ko ci waaye yàlla suturaal nañu ba combat bi mujjee naa am donc euh, ñu jëmaat ci beneen combat Balla Gaye 2 Eumeu Sène ñu programme ko le 30 juillet incha allahu rabbi si kàttanu yàlla su ci àndee le 30 juillet ñoom ñaar neen sëgg bëre mooy comme ni nga ko waxee revanche bu neex Balla amul lu ko gën a ñor lu dul combat boobu waaw tamit ñor na ko lool ndax waa Pikine tamit euh, waaw am na fu ñu koy xaar ba pare teg ci dafa dafa dafa dafa dafa nekk leader ci Pikine am ñu topp ci ginnaawam donc euh, waa Pikine moom it ñu ngi koy xaar te Géejawaay namm nañ bés bi Géejawaay namm nañ Balla Gaye Sénégal namm na Balla Gaye waa diaspora namm nañ Eumeu Sène namm nañ Balla Gaye am na ñoo xamante ne dañ naan ah combat bi gi combat bi combat bi waaye combat bi ba ñu yegg ci combat du ko dàqate. ok lu leer laa la wax. lan ngay wax Eumeu Sène aussi tamit moom dafa mel ne dafa umra ji woon ëmma waaw gis naa ko mu umra ji sol ay ay affaire am xëy na ndam la ñaani ji woon ah, ah, <laughs> la ah, xëy na ndam la ñaani ji waaye yegg si nañ ci jàmm war ngoo ko seeti sax defe naa waaw war nga ko mm. seeti ngeen waxtaan bu baax xam naa ne am na lu mu la war a wax mm. jàmbaar la de mm. pare na de daa mel ni ah boobu ba léegi mu ne ma kañ la kañ la ah, ah, léegi nag si ne nañu avenant bi donc euh, ñu xaar le 30 juillet rek ku nekk wane sa morom léegi ñu ngi xool pour ñu ñu programmer face à face yi mm-hmm. comme ça combat bi ñu commencé ko jaay ba pare nag bu ñu fàtte le 14 mai waaw le 14 mai franc forçat dama wax ñoom ñaar. noo ñoom dañu war a wane seen bopp. Hmm, Serigne Ndiaye de Eumeu Sène junior. Hmm. bëgg bokk dans la cour des grands. Hmm. xam nga fii ku fi daan danga nga jëm a yegg. donc euh, sans compter suñu waa ji Doudou Sané. Ablaye Diop Ablaye Diop nee na mënoo mënu ko waram yoof nekk ci ginnaawam mm-hmm. Mm-hmm. non le 14 mais gëm naa ni non beneen mbir lay doon mm-hmm. ok bala laa yeewi bala Gaye 2 nee na dernier face bi ci yéen la des da desul ci moom Euh, bon dernier face to face bi est-ce que weesuwul parce que fu mu nekk nii moom ñi ngi ñi ngi wax waaw ku nekk jël na combat ku nekk fayee ku nga xam nga la jaratul ñuy wax wax yi dernier face to face xëy na dinañ ko jël benn interview war nga ko mën a dem jël interview mu wax lu muy wax et puis après mu jeex hmm. waaw parce que fu mu nekk nii moom face to face boo xamante ni moom passé na un mois deux mois hmm. doon jaratul ñu ciy wax hmm. waaw xanaa nañ xaar rek nañ xaaraat Gaston Production Euh, le 14 mais jóge la 14 mais dem la 30. suñu jógee foofu nag après ñu dem préparer ju Modou Lo Boy ñaa Modou Lo waaw. combat boobu kañ lañ koy régulariser. combat boobu léegi rek comme nu ñu def nii. ci Balla nga tekk de booboo coow da cee bëri makan waaw waaw baax na làmb coow. Hmm. waaw làmb su neenaal su amul coow du neex. mais ngay yëngu wala nga ci ay leeral saa bu ma la ci laajee da da nga naan déet quoi. non mën nga ma ci laaj mais man euh, su ma neexee tontu su ma neexee du ma tontu. la neexee. <laughs> su ma neexee tontu su ma neexee du ma tontu. non ñoom Mbaye Toldo ñoo koy laaj ñoom Serigne Dour diaspora bi. lu jot yomb. xam nga maa ngi nii soog a régulariser Balla Gaye Eumeu Sène. Ah. dégg nga ci lu ne. Ah, régulariser naa ko. noonu lay demee ak Modou Lo Boy Niang incha allah. boobu combat. waaw mbir la. Hmm. nekkal si jàmm. <laughs> macha allah mi ngi noonu mbokk yi Makan Mbeng la gis ngeen ko nga xam ne ñëw na CNG mi ngi noonu di dugg ci biir Ibnu père Ibnu mi ngi si biir mooy ménageru ki nga xamante bi nii mooy Eumeu seen waaye aussi tamit bu leen fàtte Basirou Babou mooy ménageru Balla Gaye numéro 2 mi ngi si biir kon mbokk yi yaakaar naa ne wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ taali bàgg war mbaam lu waaye doon jaay léegi mu lamb parce que tamit ñaari mbëri bu leen fàtte dañoo nekk ci xolu sénégalais yi muy Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye l'ancien roi des arènes Eumeu seen borom def du wër day tane borom taashi nga lancé roi des arènes mu nekk combat bu neex ñoom ñaar nag seen revanche yu soree na parce que dañu bëri woon 8 février 2009 Eumeu Sène daan Balla Gaye numéro 2 bañ fa jógee xalil yaa ngi ree bi de dinaa ci ñëw bañ fa jógee aussi tamit lamb di dem ba 5 avril 2015 ñu bëriwaat Eumeu Sène daanaat Balla Gaye numéro 2 bañ fa jógee aussi tamit Balla di defaat ay performance Eumeu seen comme noonu ba 30 juillet 2023 ñoom ñaar ñu war a bëriwaat fii ci arène nationale bi mësuñu fee bëree yaakaar naa ne ñaari combat yëpp Demba Diop la mu nekk combat yu neex yoo xamante bi ni saa buñ tëggaatee combat bi day neex te bu ma juumul première ba Gaston moo ko tëggan deuxième bi nag drapeau Lamine jaag la kan moo ko tëggateen drapeau Lamine Diack la dernier combat bi damay fàtte ban promoteur moo ko tëggoon mais drapeau Lamine Diack la woon yaakaar naa waa GFM ñoo tëggoon combat boobu mu nekkoon combat bu neex a a neex a nekk na yaakaar naa ne waaw loolu kenn dootu ko fàtte mbokk yi ñuy baal ak ñëpp di balu ak ñëpp di leen jox seen wàccuwaay mboolem ko abonné ci Gaston Production rek amaan mbégte ak kontaan ak contentement bu rëy rëy di bokk yow li nga xamante bi nii mooy koor gi di leen baal ak di leen balu ak di wax ne yàlla nañu ko yàlla boole baal fan yi nag del yi bari na lool waaye dama yaakaar man est-ce que du ma jël ndaare ama jaar na fee bulldozer jaar na fee makan mbeng mi fi jaar léegi gis ngeen am ndel la watu Babacar mi moom ñi meew ta watum ndel Babacar mi Nduufa TV reporter yi kenn ñi meew cee watu ndel yaakaar naa li moom man kese maa ko sañ maa leen di siyaar commentaire yi moom xam naa ne tey dina neex lool mais maa leen di bége yéen yéen may wéttali ci koor gi amaat naa mbégte ak contentement bu rëy waaye xalil duñ fàtte sama téer ba Aliou borom Ramdan Couture maa ngi koy siyaare bu baax a baax ku ci mel ni euh, Mondiaye directeur Chéri Mado Fadilou Fall maa ngi koy bége bu baax kan la suñu waa ji Babacar mu lam borom marché Petersen maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax xalil waaye tamit yaakaar naa ne euh, ki nga xam mooy maam góor borom marché asalem xalil xam naa ne fan yi dinañ fa dem borom marché géejawaay marché bu bees borom góor yombul dinañ fa dem incha allah parce que dafa ubbi place bu bees yaakaar naa ne boo xamante bi nii pour lépp loo xeetoog tisi ak yu baax incha allahu rabbi da koy jaay ñi nga xamante bi nii ñoo koy yittewoo mbokk yi lii la woon waaye Babacar kaay dama la fee fekk de kaay du mën a ñàkk borom ndóofa maa lay siyaar baax doo watu ndel ah alaaji Mourou ndel ba bàyyi ko gaay rek <laughs> wala baa ko xale bu waay doon bu ne moo doon kan kii ñimew ta watum ndel moom ko laal ñu bëri bëgg naa leen fayal dix mille mhm. bëgg naa leen a may dix mille leen ñu watu mais dañoo bañ ah mais gars yi daal moom man daal xale maa ngi rek waaw boo laa xaar bu watu watu gis nga Makan Beng léegi ñëw fi gis nga père Ibnu mi ngi ci biir ak Basirou baa mu mel ni coow li bari woon na ci Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu seen du am régularisé nañ combat bi ñu ngi ci biir. Alaaji Modou balaa maa dem dara damay nuyu mbokku internet yi nga xam ñooy bàyyi Gaston TV xel. Mhm. di leen ziar bu baax di jox seen wàccuwaay di la jox sama jox sa wàccuwaay bu baax a baax. Mhm. ndax Modou yaakaar naa ne làmb ku yokkul da ngaa ah, yow ba nga ñëwee ci làmb yaa ngi ci bay sa waar. di xool li nga xamante ne nii moom la amateur yi bëgg ko daal indi. Mhm. yaakaar naa ni. Gaston Production bu ñëwee tey di réglage li nga xam ne mooy Eumeu Sène. ak Balla Gaye 2. yaakaar naa ne loolu du ñu guleet. ndax su juumul Gaston Mbengue mu ngi dugg ci la 1992. boobu ba léegi mi ngi bay ci waar événement bu événement jaar na fi. Mhm. burki demoo Ndiaye jóge nañ ci saa ci rek rek. Boy Niang Balla Gaye gis nga ni ñu def arène nationale. Mhm. ñu ni woon du am ak du am mu am mu am nii. Mhm. cool yi bari woon dool ci diggante Eumeu seen Balla Gaye 2 dina am ak du am du am. ba tey yaakaar naa ne agsi nañ ci li nga xamante ni nii yaakaar naa ne mooy cëppaandaw gi. mooy dëgg gi. muy fii seen dem ñu war nga réglager combat bi ñu si félicité Makan bu baax a baax a baax a mm. ne ko mm. fi bàyyam tegoon tànk ba léegi mu fa teg tànkam te Modou mm-hmm. tukki neex lu gaay naan tukki neex na loolu mm-hmm. waaye tukki yokkul wërsëg mm-hmm. daa dajale wërsëg rek ama seen ma nga yaakaar naa ni umra ji na ah, ñibbisi na ñibbisi yaakaar naa ne picc nga woon sa waaye xel maa nga sa suuf bala Gaye 2 lu ko waay waxal waxal waxal waxal xam ne boo ibbee xool amateur yi ibbi xolu askanu Sénégal xol seen xolangu ca mm-hmm. muy ndaanaan def tàkku naaj bu ne mm-hmm. ñu daje woon ñaari yoon nag mm-hmm. Eumeu Sène am ndam ci kawam le 30 juillet Balla Gaye day rectifié wu wala Eumeu Sène day dogali ah ñu bàyyi xol waa ne di mu jëkk bëtëb macha allah mi ngi noonu Babacar la maa ngi koy jaajëfal bu baax mbokk yi di leen jox di daje léegi si kanam incha allahu rabbi ñaari menaces yi dinañ wax promoteur bi dina wax coordinateur bi Abdoulaye Ndiaye dina wax ñu dugg si biir xalil jaajëf si kanam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 lii du combat lii mu ma ko def combat lii dafay musculaire la.